yow na naa loo ma woowee léegi. Dakar. Dakar. Dakar Dakar ñaata yoon la woo. un de respect. Dakar chef de quartier nga may wooye du ma sa morom. ah bu réew bu réew nga yow bu réew ah. su ay dal jaar ci parce que de quartier bi oui laa xam nga ne yaay mbamb ci koñ bi sànq laa jógee euh, ci côté Grand Place ah paa ngi fa toog ñu ngi tànk nag mu ne wax naa li ma xam surtout surtout maam mbay billaay fi ne nii ab jakartaa ko ci nelaw dina da ko yor am ko dawal ko ne la téel a sef dakaay na nga dam Dakar ah man daal loo Dakar yaa ma yab Dakar ñoom yëbul ma de yow yaa ma yab Dakar ñoom ñi ñoom ñi nga xaana dañ ne eh, eh, eh, wax la ñuy def ngay ñëw di ko informé xanaa waxoo Ibra xëti maman damay damay tox soyee soyee oh. maman daa toxo toxo toxo ba xol bi faso yaa ko tee de ndax xol bi xol de xol bay gis nga génn soxor ji uh-huh. bu fekkee nit dafa doon chef de quartier uh-huh. man yàlla dénk na ma pouvoir bi uh-huh. mu nekk dégg naa li may wax ci mbedd dégg naa ko de man def li ma dégg ma wax ne ab Dakar taa ko tee nelaw am ko rek romb la rek ne la teel ne kërëb damm kalaame naa leen nag booy kalaame naa ko booy. nee na booy bi faaw ñu rentré ko. ah den xaar loolu fi wax naa ko wax naa ah, ko ay këti jantal lay naan. waaleykum salaam. kayfa alukum. waaw. ñu ngi lay ziar. ah ni ko kayfa. kayfa alukum. Ah, maasa kalbun. kalbun maasa. waaw yéen yéen xanaa moom bala ngeen bu nga ñëwee ci kër jàmbur bala ngeen toog ñu wax leen toog leen mu ne xelaa kere kaw saraak ci bërëb joxe waaye kii mooy kan. hey Dakar ñu soxla wuñ la chef de quartier moo ñu fi indi. waaw maa oh. chef de quartier bi de maa chef de Dakar xam nga Dakar dafa ëppal. sa kanam gi mel ne laaloon nii. te baax na. yow xanaa famille Jackson nga jógee. udna nastaidu udlati shayf xoolal xoolal xoolal eh kii boo ko fi indi na fi jóge laa la wax lay xudd naa benn xale fi mooy lan loolu mooy lan hmm. waaye demal demal la dem bàyyi ko mu dem suñu faale wuñu ko ñun toogal toogal toogal ñu ko faale waaw ko ci discours olof rek lu muy wóolu maanaam li li doon li bay doon nag ndey olof chef de moom dafa ñëw ci dëkk bi pour jox chef de quartier yi xaru tabaski. Ah, ah, waaw waaw waaw bisimilah et si nga ci chef de quartier yi. anta wa anta chef de quartier. man huwa chef de quartier man la maa chef de quartier bi. ana ana ana ana chef de quartier de quartier koñ de quartier saxiir ah alxurufu saxiir wa alkabir alxurufu. kullaha mabniya. tekki dañu waay. Dakar lu ma. tekki la ma yuut meen. gaale ma. waaw xaaral ma rek. wuy ma nee na dañuy jox ay xar. waaw. chef de carte da koy jox. waaw man la ko waaw. Ouskout. da daan liggéey fee ab doxandeem daal da daan sangi néew yàlla dogal mu ñëw ñu ne ma jàppale ko waslu ci àq ngir li lay fa sabilillahi day fen Euh, euh. xul wa antum kii chef de quartier yi la bëgg jàppale ku ci nekk mu jox leen xar moom loolu la nekk di expliqué nii. ndax euh, am na chef de quartier yu bari yu mu jox xar mais dafa laajte ci koñ bi ñu ne ko yow yaa fii mooy kër chef de quartier. moo tax mu hmm? de quartier du dof day wér. ba ma xoolee rek xam ne maa ko yor. waaw man kii wax ak lii toog ñoom ñaar ñoo niroo. ismi ismi chef de quartier. ismi chef de quartier. naam. Euh, maanaam mbaxalu géej gi. c'est quoi mbaxalu géej gi. mbaxalu géej gi wàccee ba jën ku mel nii boo ko yoree. di jege di ko dimbali. uduna. uduna xari xari. ilal madrasa wal xuruuf xul wa antum. ah dégg nañu waaye kenn mooy am muy chef de ah, quartier bi te nee yéen ñaar da ngeen koo jaaxal parce que xamul kan mooy chef de quartier bi si yéen ñaar xoolal kan ma ci gën a ñaaw gën cee dof ma da ma da yow da kii moo gën a ñaaw gën a dof ok da doon dox ci mbedd mi ay baay defal yàlla di kii da loolu lu baax la yow foo nekkoon sa kanam ñi mel ne banque ndaw ah? kon ñu suma wax de euh, rësu saxiir wa ra'sun kabira wa ila limaza lam tasab sa azhabu adet adet adet adet kay kay kay kay kay kay asam tabu asam tabu asam tabu asam tabu asam tabu asam tabu asam tabu asam tabu waxal dëgg nag da nga bari wax nag da nga bari wax yéen ñaar ñi da nga bari wax da ngay noppi ana xari su ma te yaay naan seen Dakar lu soyoon ci xar la wax lu soyoon ci xar euh. continue sama biir bi doon daw waaye mun ngaa wax. lu ci yoon xar laa la wax. léegi dëkkaat xam nga nu ñuy def baabu mi dafa amul jot ni mu ñëwee ci yow dafa am ci ñu mu jógee te bu jógee ci yow dafa am ci ñeneen ñu muy dem. effectivement léegi xam nga nu ñuy def. fi ñu jaar fépp fi ñu jaar fépp nañ fa def noonu la ñuy def fii te ñu jóg continuer. léegi ni ñuy def da ngay da nga may jox sa numéro. am téléphone ah, waaw waaw newal newal non non man du ma jël numéro sama numéro ngeen di jël ma wuy ma wuy ma ndoxum sit lay joxe xalaat sama téléphone fan tànk ndoxum sit lay joxe la wax waaw doon na mu ñëw nag waahid tafal tafal sant Dakar damay poobar sa lu bon de arbaa xamsa sitta indicatif de Sénégal la 116 moo jub 116 mais yow chef de quartier sa numéro bi dafa ëpp xamul xamul wàññi benn benn numéro nga ci wàññi su ma ci wàññee su ma waree naa la jot waaw ah, wàññil wàññil benn ngay wàññi rek benn intaziru xalilan maasa tafalu yow numéro yi dañuy joxe numéro yi dañuy joxe ndayam buñ soxal lan ndayam baax na baabu mën nañoo jóg dem nañ dem waaw nañ dem fal nasab waaw léegi xurofon xay na jooju xarit yi al xuruf kullaha mabni ki doo wax ak moom mën ngay waxal waaw ma gunge la baax na jërëjëf mos nañ laa bàyyi yëmal foofu sa basangu fooy moom moom waaw ba affaire du yàgg rek léegi danañ déggante. aw góor li ma bëgg ci yow tey laa koy am Dakar yaay mbaam. Dakar sama taas diglu ma diglu ma diglu ma wax la. dafa diglu ma bàyyi ma ma Dakar xeeñ nga de. waaw diglu ma rek. waaw génn sama kër génn sama kër. wuyu ma acca génn sama kër. Dakar xeeñ